day gërëm mais boo seetee au Sénégal dëgg-dëgg ci l'absence de démocratie dans les partis quand même ba ma dalee politique yàgg na parce que mën naa ne depuis le lycée maa ngi politique ba l'université ak yooyu depuis Senghor ak léegi parti bi ma gën a xam mooy parti socialiste parti socialiste au temps de Senghor amoon na démocratie c'est après le départ de Senghor ki ko yor moo faible loon un parti politique du am démocratie maanaam quand le chef n'a pas une très grande envergure intellectuelle mhm. aura personnel lépp da koy bëgg a indi ci boppam est-ce que le problème même de d'appeler euh, ñi nga xam ne ñoo jiitu parti chef de parti waaw ce n'est pas un problème déjà le mais, fait de mais chef de parti mm. du problème mm. parce que quand le mot quel... chef en fait je veux dire le mot chef mais non chef ñun xam nga Afrique mm. toujours am nañ tradition chef maanaam kilifa dañ naan borom réew mi. xam nga borom réew mi la ñuy wax. Hmm. mais réew mi kan moomu ko. dañu wax ne ki jiitee réew mi mooy moo réew mi ko moom ko. Hmm. donc ñun dañoo am ay abus de langage. Hmm. yoo xam ne yi dafa am lu muy nuy jural. ci dans la pratique. mais nag parti politique yi boo ko seetee d' abord kan moo mën na créer parti politique au Sénégal. man bi ma génnee AFP nee nañ ma woon créer parti mais xam naa bu ma ko créer du dem pour créer un parti il faut parti bu war a am euh, euh, kii aura. il faut nga am jaar-jaar gouvernemental il faut nga am xaalis yooyu yëpp awma ci dara. donc créé wu ma parti pour euh, def def parti nekk ci trois cent ou quatre cent mille euh, quatre cent parti yooyu def ma ko. mais nag chef bi bu créé parti ay nit jàppale ko. ñi ko jàppale toujours au départ. ñoo moom ñoo tolloo gëdd. Hmm. mais il faut moom. pour mu yëkkati boppam. sauf quelques-uns. Mm-hmm. sànq yaa ngi yaa ngi naan dama lay tooñ mais dama bëgg comprendre rek. parce que tudd nga AFP jaar nga AFP jóge AFP dem beneen parti eh, jóge parti boobu te yaa ngi ci beneen parti est-ce que mën nañu xam lan moo waral loolu. dama la bëgg a wax les idéologies tranchées idéologie amatut fii mu ne amatut boo seetee idéologie yi fi nekk fii mu ne Sénégal politique yi ñuy mën a ñu ne ce qui se réclame de cette idéologie en Afrique gépp on mène la même politique une politique euh, nationaliste teintée d'une dose euh, de politique keynésienne le marxisme a disparu complètement de la planète donc ñun ñu fi nekk yépp noo bokk nu ñuy gouverner réew loolu moom maa ngi koy wax chefu parti bu ñëw ñaari boo amee expérience gouvernementale am nga jaar-jaar politique boo amee jaar-jaar politique am na ñoo àndaloon far force xaajatoog ñoom def sa parti man bi ma nekkee AFP mais AFP c'est comme le euh, AFP parti socialiste où est la différence Moustapha Niass moo yoroon parti socialiste. Mm. bi may ànd ak Moustapha Niass dama ne kii c'est le prolongement idéologique et intellectuel de Senghor ma ànd ak moom bi ma nekkee étudiant Moustapha Niass nekk directeur de cabinet Senghor Senghor ñu booleeg moom. bi ma demee ba le 10 mars 2014 Moustapha Niass en 1900 en 2017 booba 2017 la woon l'AFP n'aura pas de candidat tëb rek balancé na ko ma ne ko mais pourquoi tu nous balances ça en bureau politique ma ne ko non lànk defe naa elan booba yaa nga fa am dem nga. non dama lay laaj rek le 10 mars est nga foon. Hmm. le 10 mars. non def na 2014 fekk na. ah yow nag fekk na moom le 10 mars 2014 <laughs> bi mu indee di wax. <laughs> non dafa dafa am lu moom li ko tax a dem ak li ma tax a dem bokkul. bi mu indee 2000 xam naa li la tax a dem Hélène yow itam man j'étais pour toi bi nga demee j'étais quoi j'étais j'avais dit que li tax mu dem war naa dem parce que les meilleurs sont partis parce que Niass Moussa Ba Niass buy investir day seet. ña neex mais il elle ne cherche pas les meilleurs mhm. dans ce cas que Hélène est partie <laughs> mhm. dama la bëgg a wax leen mhm. parti politique boo ko yore leader bi en général am na jaar-jaar am na as xaalis am na relation internationale te souvent c'est le présidentiable te parti politique ku koy def nekk ca da nga bëgg ka ca nekk nekk président de la république s'il n'est pas présidentiable actuellement comme idéologie amut loo fay def te en général c'est lui le principal bailleur de fonds mooy génne xaalisam. est-ce que loolu tam c'est pas un problème. mais c'est un problème parce ah. que nit ñi duñ nangoo cotiser. Hmm. ñun AFP. qui paye commande. attends AFP ba ma fa nekkee trente mille francs lañ daa cotiser chaque mois man dama daa joxe mais quatre-vingts pour cent yi dañ daa lànk daawuñ joxe. est-ce que yor nañu ko itam. waaye yor nañ ko dañuy bañ. ñu hmm. bari dañuy bañ. ñi ci des waaf ci gannaaw le leader. lu leader bi wax ñu tàccu defe ne seen promotion ci tàccu yi la que mhm. le débat d'idées si plus dans aucun parti du monde actuellement dans les partis politiques benn débat amu ci mhm. kii yor parti bi daal bu fekkee am na chance su nekk président gars yi na pat bi bu leen wóoree ni kii amatul chance su président en ce moment les gars se révoltent c' le cas actuellement dans la paire Macky xëy na day dem gars yi ngi commencé ku ne naan nii fu may jaar fu may jaar hmm. Moustapha ne waxuma la yow sama xarit taxaw ma <laughs> jërëjëf jërëjëf loolu mooy président te waa bu fekkee yor na décret quand il et les nominations sama mhm. waay. les gens se soumettent une fois qu'il ne l'a plus certains se révoltent. quand mhm. ils voient que le gars plus présidentiel. Mhm. gars yi daw. loolu mooy kii parti politique yi. démocratie du ci am.